gannaaw bu ñu xamee ni feebar yi bëri ñu ngi lor askan wi rawatina jigéen ñi entente locale bu Bignona daal dina amal ñaareelu yoon ñaareelu yoon bés bu ñu jagleel octobre rose ñu àndoon ci ak waa Enda santé ñu def ci ay sensibilisation wante it ay seetu yaram nit ñi te duñu fay dara ci yenn feebar yi. nañu cancer ki cancer de l'utérus nekk def nañu cancer du sein. entente rocale fas yéene jàppale ñi nga xamante ne seen loxo jotul ginnaaw. waaw di du col euh, di sein feebar bi nga xamante ne mu ngi sonal nit ñi moo tax ñu d'ailleurs loolu moo tax sax ñu génnee octobre rose bi parce que fajam bi dafa cher. ci boobule xeex fàttew ñu góor ñi benn yoon ndaxte gannaaw cancer yi seet nañu seen yaram ci wàllum hépatite B nga xamante ne moom it mu ngi jëf ay lorange. hépatite B nek na feebar boo xam te bu ñepp ñu bari xamuñu ko mais feebar bu metti la bu japp nit même mag surtout. sensibilisation dépistage wante yitt amal nañu li nga xamante ne moom mooy maye deret. don de sang pour jàppale wa hôpital bu feebar yi parce que lool dafa bëri les ci hôpital jigéen mën na dem pour wasin wasin ba paré manké deret duñu am deret buñ koy kiyé entente Urocal ak ki ko jàppale di Enda Santé li ñuy séntu rek mooy jàppale ñi nga xamante ne am-am bi demeew noonu ngir ñu mun a profito si boobule bés ngir ñu mun a xam fu ñu toll si seen wàllu wér yaram.